Salut les amis de eSport TV, merci encore gars de la conférence de vous merci de vous des likes, merci de vous des abonner.

moom ak FC Séville Idrissa Gana Gueye un prochain entraîneur bu bees également qui nga xam donc qui dit donc Ferland Mendy waxaade aussi ci am Rabat au FC Barcelone le yëpp nañ si mais d'abord insolite bi nak ki nga xamné ne moy jabaru Joao Cancelo mo daal di génn def ben tweet mu ne daal ki nga xamné moy donc Joao Cancelo mu ne ko nekkoon nga meilleur joueur latéral chez Espagne nekkoon ko ca Italie ñëw nekk ko Angleterre mu ne nit ñi bu leen sax déglu ñu wax wax ba do tu n'es pas le meilleur défenseur au monde même kuy gaari wàlle waa Manchester United donc ki nga xamné nak moy Joao Cancelo donc numéro 22 bi la fasciné sol du côté de la Bavière mom nak juróomi weer moko déssé donc actuellement donc du côté du Bayern Munich vu que né euh, lebalu donc aalu euh, plutôt juróom-benn weer la te fi mu ne nii ñu ci biir juróom-benn weer bi donc juróomi weer moo ci daal di des ci li nga xam ne moo jëm ci lu mel ki nga donc kii Isco gars Isco tamit. 22 lay sol décidément dal gars 22 dal tay da xew Isco donc ci Union Berlin la dem mi nga xam jamono ji moo nekk deuxième ci euh, Bundesliga donc euh, le milieu de terrain espagnol ancien joueur de euh, la Casablanca Casablanca la ñuy waxtaane ak ki nga xam mooy Ferland Mendy Ferland malheureusement gars yi ah, mom dal ñaari weer lay tok du ko football gañu gañu mom ñetti jongante classico yëpp du ci fekkee Ben Ben Ben Ben Ferland Mendy ndax gaañu gañu bu metti la dal di amaat li nga xam nak moy donc Betis Séville bu ñom Youssouf Sabaly sabali wara dajé nga xam donc moy fc Barcelone sabali bokku na groupe sans surprise donc Sabali devrait même tout, tout que toute l'air si jogante baram de FC Barcelone avec Betis

a bañ am rabat dem ci Barça mooy que ne ñoom euh, Fiorentina def ne mën nañ leen ko àll waaye option d'achat obligatoire mais nag Barça mënut a def option d'achat lebal mën euh, ah, moo tax mënut a def loolu euh, mënul maanaam di wax joueur bi ne mën naa ci def option donc am option day doon loolu nag la bañ ki ngeen gis ne également di Elanga waa Barça également dañ ko bëgg ñu àll leen ko fi ne nii comme que Ousmane Dembélé dafa nekk ci blessure ñoom xam dina mën a pallier absence su Dembélé moo Elanga lañu bëgg ñu ànd leen ko Sabitzer le joueur de la Bavière Robert Bayern actuellement nak ñaari club muy Chelsea ak Manchester United ñoo ci nekkoon di euh, jëm xol xool nañ fex ba recruter ko Sabitzer tay entraîné wul donc ñeneen sax Manchester United mo gëna jëgé pour dal di koy recruter ki nga xamné ne également moy Eriksen moma ah, joueur de Manchester United gis ngeen jogante bi ni contre Reading la won gañu gañu bi motax momit hein ki ah Eriksen dina tok ba mois d'avril avril bu waree reprendre normalement ci li ñu wax par rapport ak gaañu gaañoom bi mu am loolu tamit nekk beneen tolof tolof boo xam ne waa Manchester United am nañ ko kii aussi am problème mooy ki nga xam ne donc euh, kii di Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté également euh, dafa am gaañu gaañu moom it moom it match Ligue des Champions yi ñaari match yëpp boo matu du ko fekkee gaañu gaañu boo xam ne nag actuellement tax na le joueur il est forfait ñetti match minimum lu mu néew néew du ko football euh, foofu te championnat Premier League mais également Ligue des Champions yi ki nga xam ne nag moom ngeen gis nii ah donc di Ben Chilwell Ben Chilwell nag actuellement waa Manchester Manchester City ñoo ko bëgg récupérer ndax ba mu nekkee ci Leicester option d'achat bi 50 millions de woon Manchester City ne du pas jël Chelsea jëndu ko fi mu ne nii ñoom dañoo bëgg jëlaat ki nga Ben Chilwell mais également James Maddison de Leicester aussi cible Manchester City le Manchester City donc ñu ngi waxaale aussi di xool possibilité pour d'aller recruter James Maddison de Leicester borom coup franc yi borom bi yu exceptionnel yi wax également ci li nga xam donc kii di Thomas Tuchel Thomas Tuchel d'al entraîneur yu mag yi nekk ci Premier League yëpp ñëpp la ñëpp la tuxandoo ci saison gis ngeen ko taille 1 la lay wala mu la encaissé donc jamono ji ndaysan ah, jamono ji Edouard ko def ay clean sheet malheureusement tout dafa dem rek nga xam donc Chelsea gën a ki également ah, donc di Vitinha l'attaquant de Braga Vitinha mi ngi pour dem Marseille pour signer euh, le contrat option d'achat plutôt option bi 30 millions la ak 2 millions de bonus muy 32 millions au total Qui nga xam donc Terem Mofi finalement moujena rejoindre donc Nice moom mi nga xamné Marseille moko ko bëggoon mu ne déet du de Marseille Nice dem il a raison hein, parce que xeyna da bëggul won jël risque bëggul won dem Marseille di tok ba dafa bëggoon a ci même continuité pour d'aller évoluer et je pense que c'est une bonne chose pour lui Pape Alassane Gueye gaynde du lek mbuum de gars yi yàpp lay dundee Pape Alassane Gueye tay def na premier galop d'entraînement ak FC Séville devant le regard hein, donc regard ébahi de ki nga xam donc Sampaoli nga xam dafa kontaan di ree li mu gis ci Pape Alassane Gueye mais également Idrissa Gana Gueye le joueur le plus capé de l'équipe nationale du Sénégal tamit moom entraînement ba ci Everton dafa toj ki nga xam ne nag mooy donc Dish di seen entraîneur bés bi il était émerveillé devant Idi Sagana Gueye bi nga xam ne dafa bëgg woy di préserver place mais également wane xar kadama bu bees parce que Idi Sagana Gueye temps yi dañ ko doon critiquer ne dafa nekk baisse de forme et tout mais du moom kese Everton de manière générale ñoom ñoo nekk baisse de forme parce que actuellement ñu ngi ci presque ndàdde gi relégation sax lañ wax ñu ñaanoo ñu bañ relégué parce que fu Sénégal la nekk la bëgg mu daal di saa su nekk nekk ci kawa kawa kawa kawa kaw gars yi c'était les informations que je voulais vous donner toujours plaisir de vous servir xool leen photo bi nañ ci wax ci kanam tuuti ci waajooja ñaan yi comme toi ku ci wax woy leen di on avance ensemble dans la magie des e-sports gars partagez les vidéos yi y'a ngeen Jeff.